association nationale bu commerçant ak transporteurs yi bu Sénégal section bu Ziguinchor mer nañu ba fóot euh, lu ko waral mooy yeneen pratique yi nga xam ne mi ngi plombé seen activités yi foofu si Gambie membre kuréel boobu dañoo jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi si euh, samedi bi fale si Séléti dëkk la bi nekk si frontière bi ak Gambie euh, pour rek ñaawlu pratique yooyu yu Gambien yi yi nga xam ne conséquences yi dafa métti si ñoom. Serigne Mbacke Samb lañ koy wax maa ngi wax ci kaddu ANTCS association nationale des commerçants et transporteurs Sénégal. président bi di Daouda Tine à Dakar euh, monsieur xalifa Wade mi nekk représentant bi en Ziguinchor. li xew fii tey mooy ñun depuis fanweeri at ñoo ngi fi Banjul di fi liggéey di jënd bagage di ko tekki suñuy oto di ko yóbbu te moo am ci àdduna bi yëpp ñu xëy benn bis depuis le premier ba léegi ay civil di ay coxeur ku ñuy wax Omar Cissé Moussa Cissé ak Mominu si xëy taxaw. ni yen seen bagage yi ngeen di jënd di ko teg ci seen oto yi day dootu leen ko teg ci seen oto yi seen oto yi day dem rangi ngeen teg ko ci seen oto yi mu yóbbu ko te ñun xamuñu loolu ndax tabax sa kër ba pare wàcc ko fa dem di luyee ji kër loolu amul fenn loolu lan nu teg moo nu naqari te comme nag ñun dañ noo yar du nitu violence ci loi la ñuy dox dem nañ ci autorité Gambie yi mun nu ko régler décision ban jël ñun mun nu cee liggéey te njiitu police bi mooy ki ko jël ni dem leen liggéey këyitu bagage bu ne muy facture ak lu mën a doon su nekkul ci turu borom oto bi oto bi du jël bagage boobu te loolu du loi moo tax ñu ñëw fii génn suñuy oto ndànk dem yóbbu ko. suñu sukkandikoo si commercant yooyu ak transporteurs yi pratique boobu méngoowul ak liw règlement UEMOA yi di tëral li nga xam ne day garantir libre circulation nit nit yi ak seeni marchandises. te li ci gën a garaaw mooy Sénégal Bissau Conakry ak Mali ñëpp lan maasale. ni benn oto du fi jëlee bagage di ko yóbbu te ñoom du seen oto yi ñoo ko yóbbu. wax nañu ni ñoom contacté nañu ay autorités gambiennes ñi nga xam ne ñoo yellool mbir mi wante wax nañ ko teddee autorités yooyu kenn defu si li nga xam ne mën a indi saafara mbir nii ndax ñaar fukki fan ak benn ñu téye la ci biirub dëkk bàyyee la ay civil état bàyyee la ay civil ñu téye sa alal état toog réagirul deful nenn xanaa di la woo ay réunion yu dul jeex du du xaaj bala ngaa bàyyi sa alal ci ay loxoy civil mu am leneen lu sikk nga jël sa alal ndànk génn. dem toog sam réew bàyyi mbir mi ci loxol état mu lijjanti ko. taxaw nañu tem rek pour interpeller directement ñaax chef d'état yi. pour ñu jël ay instructions pour décanter situation bi lu mu gën a gaawee balaa muy jël beneen tournure Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri.